wa zallati riqaab li azamati wa dakdakati aljibaalu li haybati wa sabaxa raadu bi xamdi walmalaayika min qiifati allahuma bi asmaa'ika albahiyati walshiaaati alarshiyati walkalimaati alrabbaaniyati wa talaasimi alabraaniyati walaqsaami almalakutiyati walasraari alsaryaaniyati wa tasaabiix al yunaaniyati ilaahi bi rafiici samaai wa quwati al ardi wa haybati shams wa bi sirri al acdami alladi bayna adulmati wannuur yaa man kasa quluubu al caarifiin min nuuri al uluhiyya wa yaa man arsala riyaaxa nushran bayna yaday rahmati ilaahi salli ala sayyidina muhammad salaatan تفتح لنا بها أبواب الرضا إلهي والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتقضي لنا بها جميع الحوائج وتكون لنا بها وليا في الدنيا والآخرة أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن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 di ziyaara kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziyaara ñi ci opito yi te wéradi yàlla na leen yàlla delloo seen sago waaye di ziyaara ñi nga xam ne ñii dañoo nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg lu ñuy indil seeni njaboot yàlla na ko yàlla yombalal ñuy ñaan sunu Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm yal na yàlla tàppe xol yi ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante ne wasilahil karim mbokk yi kala aadat yi dañuy dellu ak yéen comme niñ ko daan defee altine bu jot ci waxtu wi di ànd ak yéen ci seen émission mujizatul anbiya waxoon na leen ko am na yonent yu bari yu ñu leen fi xabaar seeni mbir seeni jaar-jaar waaye fil xaqiqati lan mooy nubuwa wala boog lan mooy ab yonent laaj ñu taxaw def taxaw seetlu balaa ñuy jàll xool bu baax eh, ab yonent mooy kan mbokk yi jalla wa ala rabbu kulli shay'in yàlla day toog ba mu am ay siècle diggante yonent ak beneen yonent mu toog ba mu am ay siècle mu door indi benn yonent te yonent boobu muy indi ak ba mu jëkkoon a indi eh, ay at mënu koo daw boo ko doon daw ay at du tax nga jeexal ko ndax distance ba ak guddaay ba kon distance bi li yàlla toog ba mu am diir bu yàgg muy door indi benn yonent am na sabab waaye man huwa nabiyu alladi summiya nabiyan ki nga xam ni kii dañ koo tuddee ab yonent mooy kan yonent bu ko yàlla di wàcce dafay fekk xeet wi nga xam ne wi wa ala kulli xaal baxaw fil ardi wa aksaru ala al ardi mooy xeet waxam yi dañoo nekk ci kaw suuf rek di yàq di të tëddee seeni jigéen di naan sànni sàngara di reyante seen biir di moyante seen biir ak yeneen yi ci tegu yeneen ñi ci su ko defee xataa kasuratil fasad ala wachil ard yàq gi bari lool ci kaw suuf ci la yàlla di toogee ba jëmmi jamono mu daal di xool ku ko neex ku ko soob ku ko doy ku ko neex ku ko soob ku ko doy mu tànn ko ne ko yow day yow laa bëgg def sama dendandoo nga dend ak man ma di la envoyé sama message nga waxal ma ak peuple bi ne leen innahum ak fasada ala wajhil ard ñi ngi yàq rek ci kaw suuf te yàq gi ñuy yàq man yàlla maa xalaxtu dunia lil fasaad binduma àdduna pour ñu yàq rek waaye it indiwuma leen fii pour ñuy yàq rek nañ ci bàyyi xel su ko defee mu tànn koo xam ne kii day nekk euh, tànneefu kaayam maanaa lépp lu muy wax ci moom la koy jaarale lépp lu muy jëfit ci moom la koy jaarale haada huwa nabiyu kii mooy ab yonent bu yàlla tànnal boppam des na nag awalan ñu xam caractéristique yi nekk ci ab yonent mooy ab yonent du tuuti jëmmam du tuuti dooleem dana bari muy ñaar ñaari mbir ngoog yoo xam ne benn bu ci nekk nañ ko bàyyi xel ci ab yonent ab yonent jëmmam du tuuti dënn bi day yaatu xel mi day rëy puissance su dooleem dañ koy yokk ndax nuurul yaqiin bi nara a ñëw ci moom moo sabab loolu yëpp nuurul yaqiin nag mooy la lumière divine bi naar a jóge ci asamaani juróom-ñaar bëtt leen ñëw sotteeku ci kaw haada nabi ci bile yonent pour mu nekk yonent pour mu supporter euh, leer ga ko yàlla di sotti pour mu supporter it kalimatullahi muy baatu yàlla ak diisaay ba ak rëyaay ba ak na mu toll lépp mu bëgg koo teg ci benn dënnub doomu adama doomu aadama boobu war na am kàttan war na am teey ak dal ba xam kii wax ak moom mooy kan critères yooyu critère la yoo xam ne yi dafay am ci ab yonent ñaareel ba ci critères yi nga xam ne ñi moom la bàyyi xel ci ab yonent ab yonent saa yu ko yàlla yónnee bu ñëwee du waxal boppam benn du lijjanti ay kont yi jëm ci boppam ñaar li muy xaar daal mooy ndigalul yàlla yàllaa koy wax ne ko waxal mu wax demal mu dem ñëwal mu ñëw toogal mu toog haza huwa tariq lin nabi alladi axtaarahu llahu jalla wa ala linnaas kon ab yonent caractère yi la ab yonent di yor te wax ji ngay jàllale ci askan wi wax la joo xam ne du yow yaa koy choisir du yow yaa koy xalaat du yow yaay xolli la neex rek nga wax ko asan déedéet yàlla kay mooy envoyé message ci yow ne qul linnaas waxalal ma nit ñi nangam jëflanteel ak ñoom nangam àndal ak ñoom ci nangam tere leen nangam ne leen ñu bàyyi nangam digle yooyu mooy digle yi nga xam ne yow ala kulli xaal dafay baax ñi xam kan mooy yonent te ab yonent mbokk bi du xiif du mar du tàyyi du toqi yàlla def na ci ñoom sabran kabiran ab yonent yàlla def na ci moom muñ goo xam ne gii li mu mën a muñ moom rek moo ko mun amul benn yonent boo xam ne bi li muy muñ ab civil comme niñ koy waxee mën na ko muñ déedéet ab civil mooy lan mooy un homme ordinaire mooy nit koo xam ne kii euh, ak àggagoo ci darajatul wilayati àggagoo ci wàllu awliya illahul uzma te nekkoo ab yonent antama baynahuma yaa ngi nekk ci diggante bi kon ñu gis ni eh, nuurul yaqin boobu yàlla di sotti ci kaw yonentam boobu lan mooy sababu googu leer sabab gi mooy li fatxi aqlihi wali fatxi qalbihi ubbi xelam ubbi xolam ubbi xol bi mooy ñi def ci loo xam ne lii lépp lu ñëw mu encaissé ko lépp luñ ko def ci lu métit ci metit bu tar mu encaissé ko nangu ko waaye lépp luñ ko def te tooñ ko mu man ko muñ hada huwa nabiyu alladi axtaarahu llahu azza wa jalla naa linnaasi jamian ku yàlla tànn ko ne nii ngay mel nañ ci bàyyi xel beneen bi ci tegu ñu bàyyi ci xel ab yonent yéreem bariwul lu mu koy soppi sol bi suba nga sol ba ca des ginnaaw suba nga sol ba ca des déedéet yàlla defal na leen xéewal goo xam ne gi benn yére rek lañ leen di xamee te yére bii du tilim du xoteeku muy lu yéeme lool ñaareel ba duñu dox di gestu gauche gestu droite déedéet fi ñuy xool rek fa la ñuy xool xool lijjantiwuñu lu dul li lekk seen kanam li annahum yarawna maa laa nara nahnu ñoom dañu gis lu ñu gisul di yëg lu ñu yëgul waaye di xam lu ñu xamul ñetteel ba dañuy nekk ñoo xam ne ñii ay malaaka dañ leen di entouré di dox ci seeni service laylan wa naxaaran guddi ak bëccëg suba ak ngoon saa yi ñu saqatee rek gaa ab gàddu ñëw taxaw ah, ayyuhan bi yow yeneen bi loo soxla mu dégg nangam yittewoo nangam yitte naa yittewoo nangam ak nangam ak nangam ca saasa ñu faj loola euh, garde corps yooyu nag nga xam ni ñoom ñooy ànd ak ab yonent mooy tax saa ñu ko bëgg a fitnaan rek yàlla intervenir muy lu jar a bàyyi xel lool mbokk yi dañu bëgg tey nit ñi xam man huwa nabiyu euh, wa sifaatuhu ab yonent nu mu war a mel ci ay melokaan yi ñi leen limal yëpp benn bu ci nekk ab yonent daf koy dal beneen bi ci tegu nañ ko bàyyi xel waxoon nañ ko léegi mooy ñu bàyyi xel ni yeneent buy dox am na ñu ko encercler ci zaahir ak ci boo bëggee dem fu sori am na ñu koy yóbbu ak lu mu sori sori sori nag yi ab yonent yàlla may na ko pouvoir suy voyager fépp mu bëgg a dem ci aalam bi ci àdduna bi dina fa dem allahu aalam yor na paas yorul paas yor na moyen de déplacement yoru ko dina dem gis nga rabbu samawati wal ard su namee dara bëgg dara ñun ñoo fay nekk kay di wax naan nii lay demee na le waaye moom kun fayekoon rek la koy delloo nekkal rek loolu nekk mu jeex tàkk ñu bàyyi ci xel te yi ñuy wax yëpp benn bu ci nekk yàlla da koy jox nabiyan minal anbiyaay ñetteel ba mooy néew na lu ab yonent di fréquenté fu ay nit bari ab yonent foo fekk day wéet di wéetal boromam di laaxatu di daw nit ñi di sori nit ñi sababu zaalika nag li koy sabab mooy euh, nit ñi dund ak ñoom ci wàllu baatin euh, lu ci bari say mbir day am ay sooxe sooxe ndax dinañ la yóbbu foo buggul def loolu la loo buggul def kon su ko defee ñoom it dañuy bëgg jël seeni am-am seeni kàttan seen leer seen xam-xam dem seet bërëb boo xam ne bii kenn du leen fa fekk ñu toog fa sànc fa dëkk fa waaye naam buñ fa sàncee dëkk fa sax nit ñi daal ñu leen fa fekk ndax al isharatu takfil man anqala junj junju doy na borom xel mi ngi noonu haza huwa nabiyu kii mooy ab yonente te ab yonente ni lay mel Euh, beneen bi ci tegu ci ab yenent nañ ci bàyyi xel ay waxam bariwul ñoom yàlla may leen àdduna boo doy waar boo xam ne bii boo ci duggee amul wax al isharatu takfi liman aqala junju daal doy na borom xel ab yonent kàddoom du bari waxam du bari waaye nag yàlla may na ko ilham gu toll nekk Euh, loo wax mu xam ko lu mu diis yàlla yàlla fajal ko ko muy la am solo lool kon nañ ci bàyyi xel bu baax te xam ni ab yonent yàlla jox na ko pouvoir bu mu joxul kenn ñetteel ba mooy ab yonent néew na looy fekk ab yonent mu tëdd nelaw dañuy jënee rek innahum yaraw na maa fi sudurihim dañuy dañuy yaatal rek te xam li ci si dënn yi li ci yàlla def ci seeni dënn euh, ci li ñuy xamee lépp gis ci lépp gis nga ab yonent su la xoolee rek dina xam man anta yooyu yaay kan ci zahir ak ci baatin dina xam looy dox foo jëm lu doon say tànk lu la tax a jóg lépp dañ koy xam comme ni ordinateur di fichier say dossier boo ñëwee ak lu mu yàgg-yàgg bu génnee dossier bi ne la yow la diw doomu diw ci waxtu sàngam ndegem machine moo mën a denc loolu di ko mémoriser ay ati at astamaak machine yàlla bi nga xam ne bii mooy al al aqlu wal xalbu muy diggante xel ak xol lu am solo la waaye bala ñuy Euh, sori dañuy dellu siwaat ak yéen waxoon nañ leen ko ci émission yi paase ne ne dinañ leen wax tuuti ci ana kan mooy ab yonent ab yonent na na ngeen bàyyi xel ni bés bu déplacé wu rek yàllaa ko yëkkati ab yonent du dox ci teyug ba kanam waaye su doxee rek am na cër bu ko yàlla jox ñu bàyyi ci xel Euh, su ko defee mbokk mi euh, haa huwa nabiyu kii mooy ab yonent boo xam ne bii euh, yàlla may na ko pouvoir nag ci lu bari ndax bu ñu seetloo yonent yi fi jaar seeni jaar-jaar xëy ñu rek dugg école xëy ñu rek nekk jàngkat dañoo toog rekk ba xëy benn bés yàlla mi dara tëwul te man lépp xëy benn bés rek tànn leen def leen ay anbiya muy ay yonent ñu commencé yaarifuuna maa lam yakunu yaarifu min qablu ñu commencé di xam lu ñu xamul woon di dégg lu ñu déggul woon di gis lu ñu gisul woon hada huwa martabatu nabiyi kii nag lii mooy martaba bu rëy bi nga xam ne bii képp ku yonent euh, yàlla may na la martaba bu toll noonu bi gën a rëy ci martabay anbiya yi mooy assukootu assukootu mooy nàppi moo gën a rëy ci eh, xam-xam yi yàlla joxe sukootu mooy dal noppi mooy li nga xam ne li moo gën a rëy ci li yàlla di eh, réservé ci ay mbir boppam te it ab yonent du du wax ay waxam du bari wéetam moo ëpp toogaayam ci biir nit ñi néew na lu ab yonent di toog ci biiri nit néew na lu ab yonent di wax wax ji bari néew na it wa ko li xaal ab yonent di jóg te yàlla jógloo ko wala muy wax te yàlla waxloo ko kon mu ngi noonu ñu bàyyi ci xel ab yonent nag taatu garab mooy néegam jamonoy anbiya ullahi al uzma nitu yàlla yu baax yépp dañoo tàmmoon benn garab ci digg àll bi tabax fa seen néeg boo xam ne bi ay ñax lañ ko ràbbe daal di koy tabax ci digg àll boobu defar ko ba nit man cee dugg di ci fanaan ci noonu lañuy ñu nekkee hakaza yaayisuuna eh, fi fi l ak l mën eh, fi l gaabaat Euh, ci néeg yi nga gën a woyof ci néeg yi ci la anbiya ullahi yonent yàlla yooyu ñi ci lañ moom lañu ñu gënoon sopp ci seen dund euh, que ñi leen di yóbbu ci ay kër yu rafet nañ ci bàyyi xel muy la am solo waaye it ala xaal bu ngeen ko xamee noonu da ngeen di xam ne rek ab yonent kenn du moom sërru bi ko yàlla defal daraja ji ko yàlla jox nuurul yaqin bi nekk ci moom kenn du ko gis fen kon mbokk mi ñu bàyyi ci xel ndax waxoon nañ leen ko ne leen daañu leen indil ay leeral eh, min dalaili nabiyillahi eh, bokk na ci tegtal yi ñuy indi ci ki nga xam ne kii eh, wa ala kulli xaal rabbu samawati wal ardi day yónnee ay yonentam te ñu ñu leen umpale lool ci seen nekkin seen waxin seen toogin ab yonent nag waxoon nañ leen ko léegi du wax te yàlla waxloo ko du jóg te yàlla jógloo ko waxataa kam ko tëddee na noonu nag nañ bàyyi xel yonent yàlla yooyu yàlla nañ yàlla taax ci seeni xéewal ak seeni barke mbokk mi dañuy ñëw ci li desoon ci seen xarit biñ leen fi indiloon euh, nga xam ne ñun ñëpp histoire am duñ ci doyal di ko bamtuwaat li ci des mooy iram zaatil imaad allati lam yuxlaq misluha fil bilaad iram mi nga xam ne bi waxoon nañ leen neen ci dundam de iram yu yàlla joxoon àdduna la sharqan wa garban mu di ci dox di ci wax di ci def lu lu am solo dajale woon nag alal ji mu am yëpp ci àdduna sharqan wa garban yaminan wa shamalan guddi ak bëccëg suba ngoon iram mi ngi dajale alalam rek di teg mu jig ñi naan ko ah iram sa alal ji ngay dajale bari mu ne indi leen rek fu waaye mën a nekk di buur ci yooyu la jamono indi nga alal judul jëf tegal ko iram zaatil imaad iram jël alal jooju tabax ci satom bu rëy boobu ñuy wax ñu ne ko loo ci jublu mu ne xanaa dama bëgg àjjana ji yàlla di wax bu mel noonu lay tabax ci kaw suuf ku ma gëm ma dugal la ci biir ku ma gëmul duma la ci dugal irama ngoog muy lu kéemaane lool fa bana alqasra yàlla bàyyi ko mu tabax château ba ma mu ko tabaxee bàgg ci kaw ba dara desul incha allahu lu dul rek mu dëkk ci yàlla xar suuf si wàccee château bi ne ko doo ko ci dëkke ndax man yàlla kenn du topp toppandoo samay mbir noonu la ko yàlla def daal di tëj suuf si sato bi nekk ci biir suuf ba fi ñuy wax ak yéen nii château boobu mi ngi ci biir suuf waxoon nañ leen ko château bi nag lépp ngi ci ay dex mi ngi ci or mi ngi ci jamaa mi ngi ci yaaquut loolu arab yi di tuddee yaaquut ak zabarjat yooyu yëpp mi ngi ci biir ñu ko bàyyi ko xel te xam ni kàmb googu ñu dugal château château Iran bi li fa nekk ci alal kenn xamul nu mu waaye dem nañ ba jëmmi jamono bërëb bëréer la kenn xamu fan ngay deg sa tànk muy lu jar a bàyyi xel lool euh, ci iram zaatil imaad allati lam yuxlaq misluha fil bilad iram nag li ko feeñal wax nañ leen ko waa jooju gile réeroon mu di ko gëstu ba ñëw fii nga xam ne fa la Iram bi nekk mu teg tànkam rek pëtëx moom pëtëxee daanu génn ji foo xam ne fii fu ko jaaxal la mu gis kër gu rëy bunt bi na mu toll ci rëyaay kenn mun ko wax mu ñëw ubbi bunt bi dugg gis ci biir ay jamaa ay or yu leer nàññ ci biir mu jaaxle lool bëgg a xam lii lu mu doon kon xam naa ni incha allah eh, dañ koy yemale fii incha allah baalte ne bii di ñëw wa sallallahu wa sallama ala nabiyina wa xabibina wa rasuli wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma rabbi rabbi iftax lana ilahi wa anta xayru alfatihin wa ansurna ilahi wa anta xayru nasirin wa xaqiq lana amalana ilahi wa tamim lana niyatana waqdi xawaaijana zahiran wa batinan innaka ala kulli cheyin qadir allahuma rabbi la tuxayib rajai wa rajaana wa rajaa wa rajaa jamii almuslimin allahuma rabbi la tuxayib rajai wa rajaana wa rajaa jamii almuslimin wa salli ala sayidina muhammad salatan taftax lana biha abab alrida waltaysir wa tuxliqu anna biha abab alcharri wa taasir wa taqdi lana biha jamii alxawaaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira ya rab ya ilahi anta waliyuna fa ni'mal mawla wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء